mbokki déglukat yi salaamaaleykum nu ngi leen di nuyu nuyoo yi gën a tedd te di leen ñaanal déglu càmm mu ngi yeesal sunu cant ci bépp soppe émission yoonu njub nu ngi leen di bëgge ndax seen farlu ci déglu bi nga xam ni ngeen nga ñu koy déglu mbokk yi ndax ku nekk ci gaal war na def luy suuxal gaal ga xam naa yéen a ngi naan ah mukk xanaa ku xelam wayul mooy def lu mel noonu waaw wax nga dëgg loolu kay ku dese am xel rek a koy def waaye nag bu nu seetloo li am ci àddina ak ci sunuy réew dinanu gis ne ñu mel noonu bari nañu fi lool ci naka ndaxte bu la sa ndëngte xiiree ci nga jënd nit ba defloo ko lu dëppoowul ak sart yi réew mi tëral ndax niroowuloo ak ku nekk ci gaal di ko bënn xakay kon waaye di weesuwul loolu yéen sunuy soppee loolu nag moo tax sunu émission bi tey jëm ci mbir mu law te doy waar mi ñuy wax ger lan mooy ger ñun ñépp xam nañu ne nit lees di ger te ger nit mooy jënd ko ak xaalis wala ak weneen xeetu alal ju mu mën a doon ba nit ki la mu waroon a def mbaa la mu waroon a wax mu gëma cay bëtam ger mu ngi bawoo ci goreedi giy jañ nit ci xalaat boppam rek te du xalaat li mbir mi mën a jural askan wi ciy safaan ger mooy ndoorteel njubadi fen naxaate ak càcc kon nanu xalaat te ubbi sunuy bët ngir gis ne ger lu bon la ci koom-koomu réew mu mu mën a doon nag loraange gi muy teg am réew kenn mënu ko natt sax ni max di xale bant ba dootul am benn njariñ noonu la ger di def nit ba du mujje lu dul fu ñaaw rekk mbokki déglukat yi ndegam bu ñuy wax am réew nit ñaa tax bu galawee ci nit ña ba fënaxal leen mënees na wax ne mooma réew wopp na lool sax te wopp jooju kat suñu ca jógul réew ma du jëmati kanam mukk li koy waral mooy ger dafay tax ñi ñàkk liggéey di gën a yokku te peyooru ñiy liggéey di gën a wàññeeku garaate gi nit ñi dëkke te duñu ko tudde turam xanaa di ko nës nësal aka fexe rafetal am sax ñu koy woowe njëgu guro njëgu pon ak ñoom seen moo tax tali yi loppitaal yi lekkool yeeg kër yi baaxatuñu ger musiba la muy gën a law bés bu set laal na ñu bare ak fu bare anawaan wàll ci àddina la musiba mile laalul garaate bokk na ci sabab xare yi xiif gi ak yeneen metit yu bare ci àddina ger moo tax ba nguur yi di ñàkk ay junni junni milliards ci doomu xaalis weer wu nekk ndax liggéeykat yu dëng yi ñuy ger ndimbal yiy jóge bitim réew di tàbbi ci réew yi néew doole ger moo tax ba ñi ko yeyoo duñu ko gis walla bu ñu ko gisee it duñu ci jot ni mu ware mbokki déglukat yi ndax laajagum ngeen seen bopp fan la ger jóge nanu déglu li ci liñ jil wax mu ne ci biir xoolu nit la xalaat yu bon di jóge ak ndoxaanul yàqute càcc ak boom njaaloo ak bëgge coxor naafiq ñeetaan saaga rëylu ak jëfi ndof lu bon loolu lépp day génn ci nit di ko indil sobe yonent yàlla yëremi teg ca ne xolu nit moo gën a dëng loo gis te dafa soxor dëgg la xolu nit dafa dëng te soxor moo tax ger it lu yàgg la ci àddina ci jamono yéesu itam ger lu siiwoon la waaye ni ko ñenn ñi mën a xalaate yemul rekk ci ñu teg ay niti baakaar déedéet amoon na ci biir boroom daraja yi ak it ci ñuy wuyoo turu diine sax te ba tey am na ci seen biir noonu yeesu ci boppam won nanu ne njiiti diiney jamonoom amoon na ci ñu dëng te nekkoon ay gerkat ni ko linjil waxe ne farisen yi déglu li yeesu doon wax lépp tàmbale di ko reetaan ndaxte ñu bëggoon xaalis lañu waaye yeesu ne leen yéen yéen a ngi fexe jub ci kanamu nit ñi waaye yàlla xam na seen xol ndaxte li nit ñiy fonk yàlla sib na ko yéen xutbakat yi ak farisen yi naa feq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi mel ni bàmmeel yu ñu weexal ci biti am melowu rafet waaye ci biir fees ak yaxi ñi dee ak tilim ju nekk ci ngistal dangeen mel ni ñu jub waaye ci seen biir dangeen fees ak naafeq ak lu bon loolu nag du woon waxi neen yu yéesu doon wax rekk di sànni noonu ci biir kàddug yàlla firnde yu baree ngi ci waaye bi ci yées mooy bi yéesu deewee ba dekki booba njiiti diine ye xam ne bu ndekkite li siiwee ñu bare dinañu gëm yéesu ñu dajaloo diisoo ba noppi sos ay wax jënd xarekat ya doon wattu bàmmeel ba jox leen xaalis bu bare mbokk yi jënd ngoru nit ba la mu waroon a def du ko def mbaa la mu warul woon a def mu def ko yàgg na fi waaye yàgg fi taxul mu nekk lu ñu mën a rafetlu bu fekkee sax ña koy def mënees na cee ràññee dara ja ci bépp fànn te ni ngeen ko xame yàlla du tebbi ay waxam su yàlla waxee ne dina mbugal ñi jubadi dina ko def waaye yërmandee a tax muy muñ di xaar nga réccu tuub te wëlbatiku ci moom léegi ci bi muy teel xëy na yaa ngi xalaat naan man ku jublaa man duma geraate te kenn mënuma ger waaye nanu fàttaliku ne kàddug yàlla nee na sunu njubte gépp dafa mel ni sagar wu tilim ci bëti yàlla kon su fekkee sax ne ci bëti nit ñi ku jub nga ba tey ci bëti yàlla bàkkaarkat bu soxla yiwu yàlla nga kon ci dëgg-dëgg jafe-jafe bi nit am mooy xolam mooy sa xol ger dafa am ci réew yi ndaxte mu ngi nekk ci xolu nit nit boppam lay ëpp li muy xalaat moo moona yàlla wax na bu leer ne bu yem ci xalaat ci seen bopp rek waaye ngeen boole ci seeni moroom xolu nit dafa dëng te saxor te amul kenn ku mën a wax ne génn na ci loolu te sax boo koy seet léegi dafa mel ni mbir mi dafa gën a takkarnaase nit ñi dañu gën a raakaaju ci njublan ak ndëngte ba noppi ñu mel ni sax dañu koy damoo yàlla nag waxoon na ko bi mu naan jamono dina ñëw joo xam ne nit ñi dinañu jublu ci seeni bëgg-bëgg te bési tiis yu tar ñu ngi nuy tëru ci mujjug jamono nit ñi dinañu siis te fonk xaalis duñu am kolere ay workat lañuy doon di ñu ëppal te bari tiitar seen bànneexa leen gënal yàlla dañuy mbubboo diine waaye nanguwuñu ko dugal seen xol xarit yi ñuy déglu loolu moo waral nuy waare xabaar bu baax bi ëmb deewu yéesu kirist ak ndekkiteem ngir képp ku ko dégg te gëm yeesu ni sa musalkat am dund gu dul jeex bu ko defee nag jaare ko ci xel mu sel mi yàlla may la kàttan nga mën a rëcc ci fiiri seytaane yu deme ni ki ger ak ñoom seen wante ñu bare ngi bañ di sofentel xabaar bii nga xam ne moo leen mën a musal waaye kàddug yàlla nee na ñi dëgër bopp ba tanqam lu dëgg gi di topp lu juba di seen pay mooy dooni merum yàlla ak toroxte ki doon def lu bon payam mooy tiis ak metit wu tar muy yawut ci bu jëkk mbaa ki dul yawut te it ndaw tiitaange ci ku sàggan ba tàbbi ci loxoy yàlla ji dund ci lu wér mbugal gi yàlla dig ñiy tanqam lu dëgg gi di topp njuba di dina ko def yow mi ñuy ger mbaa ngay geraate ndax loolu dafa jarul nga réccu tey jii te wëlbatiku jébbal sa dund yàlla ji dund xamal ne yaakaar am na tey jii ndaxte yàlla sàkk na pexe ngir muccuk nit am na kenn nit képp ku dundoon ci kaw suuf ku doonul woon bàkkaar ak njubadi gi nekk ci doomu aadama yi kooku mooy yéesu mi ngeen gën a xam ci isaa ibnu mariama moom képp la mbind mi wax ci moom ne dafa sell du def lu bon du taq bàkkaar bokkul dara ak bàkkaarkat yi te yéege nañu ko fa yàlla lu jiitu yéesu di dellu fa yàlla dundoon na ci kaw suuf di wër di jàngale lu jëm ci nguurug yàlla ak dund gu sell ba mën la tegtal yoonu dund gu sell kon yow miy déglu li wér mooy soo gëmee yéesu dinga nekk nit ku bees ku mën a dund dund gu sell ndaxte dinga nekk mbindeef mu bees li jëkk weesu lu bees teew bu ko defee nag nit ku bees gi ngay nekk dootul bëgg a seq dara ak njublang dootul laal lenn lu xeetoo ak ger wala geraate noonu ci sa bokk ci yeesu kirist mi mësula def bàkkaar te yàlla def ko bàkkaar ci sunu wàll di nga mën a doon njubte gu wér gu ñépp mën a teg seeni bët xel mu sell mee lay may kàttan nga mën a rëcc ci fiiri seytaane yu deme niki ger ak ñoom seen képp ku lay woowati ci ndëngate ak jëf yu lëndëm doo ko ca fekki ndax bañatee teg tiis sa musalkat bi dee ngir say baakaar ci misaal dafa mel ne waxambaane wa ak yaayam ju màggat ja ko musaloon ci kaso waaw dafa amoon seen soxna su màggat su amul lu dul benn doom doom ji nag jalgati yoon ñu tëj ko kaso yaayam ju màggat ji mu amoon képp yenu ji ay xeer ngir am xaalis bu mu ko fayale ngir mu génn waaye liggéey bi metti woon na lool ci soxna si xeer yi xotti loxo yi ba ñuy naaj bi soxna si dajale ba am xaalis bu doy mu fay ñu génnee doomam naka noonu waa ji génn kaso gis góom yu metti yi nekk ci loxo yi yaayam yaayam xamal ko ne gaañu gaañu yi ci loxoom ñoo tax mu génn kaso ab diir gannaaw gi xariti waa ji woowaat ko ci ñaawteef mu am ngor am jom tax mu tontu ay xaritam ne sama yaay sonn na lool ngir ma génn kaso kon nan laa mën a tee jàkkaarloog loxoom yu xotteeku yi ba noppi di defati lu ni mel noonu lay doon ak yow itam soo wekkee sa ngëm ci Yeesu Kirist ci yoon dangay am jom ak ngor te xam coono bi sa musalkat daj ngir musal la noonu sa dund neex yàlla te nga am kàttan gu bawoo ci xel mu seel mi ba tax dootuloo bëgg a jege sax fu ñuy defe luy sama ndaay njuba di rawatina di geraate ak a bàyyi ñu lay ger muy ci lu ne fànn mbaa muy ci lu nëbbu ci lépp boroomam la ci seet moom mi ne amul dara lu nëbbu lu ñu warula biral mbaa luy kumpa lu ñu warula siiwal dëgg la njuumte mënula ñàkk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 ci te jébbal ko sa dund gépp noonu xel mu seel mi moo lay may kàttan ba ger ak geraate sore la te lépp looy doxati dina nekk njubte gu kenn du laam-laamee bu ko defee nag mbokk yi ñu déglu fii lañu yem ak yéen tey di leen jox dox daje émission bi ñëw ndegam neex na yàlla su ngeen amee laaj ci lu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis. na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddu yàlla wax ne bu nit bokkee ci Christ mbindeef mu bees la li jëkk wéy na lu bees a fi teew.